ni ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi askan way yeewoo ca sexaw ga mer nañu ba futt kañu mere mooy euh, maire bi nga xamante ne mi ngi leen romb euh, saay su ne te euh, li nga xamante ne mooy mënd mi nga xamante ne moo leen sonal ba mënuñoo am benn gan bu leen dalal waaye tamit sax bu ñuy togg wala lépp loo xam ne ñoo ngi koy def ñoo koy def seen kaw lal ndax lal ya ci biir ndox yi la ne ba tax ñu génn wax su suñuy micro daal di yóbbante li nga xam mooy seen ñaxtu ndaxte sonn nañ lool ginnaaw bu ñu jàkkaarloo ak benn bassin inondation boo xamante ne ña ko defoon mooy Touba ca kanam ndox ma nag ba taw mi ñëwee bassin ba fees ba wàll si ñëw si seen kër yi ñu nag ñaxtu di tàllal loxo ngir ñu am ñoo xamante ne dinañ ñëw génne leen ci li nga xam ne ñu koy dund euh, li ñuy def rek mooy euh, daal ci teewlu euh, kenn ci ñoom mu wax ci seen i kàddu ñu di kaat sunu kër yi fees na bañ gëjee màggal si ci suñu kër yi yàgg na sunu kër yi fees na suñuy gone feebar nañ yooyaa ngi nuy bëgg a rey amuñu kenn ku nu ko fajal maire bu Touba Abdou ko fi lay jaar ci suñ buntu kër yi di dem fete kër bis bu yalla sak mu jaar fi bu ko bëgg na defar defar ko ñun nak sonu nañ sonu nañ tàyyi nañ te fuñuy wote ci Touba suñuy carte dañ ko yobbu dañ ñuy wo ay meeting fune dañ fay dem ñom wa état gis nañ ñu ndax dañuy gar fi ay auto ñun wa ko ñun ñepp ñu di fi dem gis nañ suñ ndox mi ni mu mel at mu jot noonu la ñuy mel at mu jot ñu génn at mu jot ñu génn bañ gëjee màggal si suñu kër yi yàgg na ku ñu jàppale dimbali ñu suñu ndox mi ak sëñ taxa Mbàkke moom rek lañ bëgg billaahi mënuñu ko billaay barke sëriñ Touba Mbàkke su dee yàlla dëgg rek la bëgg ci suñ kawlal yi la ñuy togge kawlal ba cin laa nga ca kawlal ba ci la ñuy togg xanaa ba ku ñu jàppale rek jàppale rek defal ñu canal boo xam ne bu tawatee ndox mi dina ci dugg ndax gis nga suñ gone yi sonn nañ te amuñu fenn nag fuñ mën a jëm buñu amoon fuñ mën a jëm danañ fi ñëw amuñu fenn fuñ mën a jëm ku ñu jàppale dimbali ñu defal ñu ab canal te yàlla rek tax ak borom dëkk bii moom lañ bëgg waa Touba ja kanam gis nañu war nañ ñoo jàppale ndax ñun bu ñuy dagg carte ñun waa Touba ñun jeege Touba bu ñuy dagg carte force lañ ñu koy dagg ca natt ya fa lañ koy dagge ku dëggul ñaar téeméer sam natt du dugg dana la sero téeméer gis na waa Touba ca kanam ñi ngi dimbali jaami yàlla yi te gis nañ suñ ndox mii te kenn dimbali wuñu te bis bu set fi la ñuy jaar waa Touba ca kanam tabaski ga ba ñuy dimbali nit ñi bañ demee ndax bëgg ñu dimbali ñu ci ndox mi bañ demee dañu li ñuy bindu doy na bu ñu bëggoon a dimbali dimbali ñu waa Touba ca kanam canal yi xaaj bi ndox mi ñoo ko waral maire bi def fi dara kër soxna na fa soxna fii lay jaar bis bi yàlla sàkk ak i oto ak i gardeem ñu di ko topp. ba tey mbokk yi euh, ginnaaw euh, élément boobule nga xamante ne ca Seexu ga la ñuy des bi yoon dañuy euh, dem déglu ki nga xam mooy Cheikh Sall Cheikh Sall nag moom ba tey ci mbënd mi lay wax waaye la ko ci jaaxal mooy liggéeyu ñi nga xamante ne mooy Touba ca kanam te nekk ci seen wet rek dafa xaw a yéex moom la muy def rek mooy di tàllal loxo di ñaan ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi foofu ñu baral tuuti seen loxo bu ko defee ñu daal di mën a tàggali kook coowal ndox mi joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy maire bi Abdou Lahad Ka wax ni euh, war naa gën a mën a yokki jéego ndaxte xam na li nga xamante ne ñoom moom la ñuy dund ba tax na màggal gi bokkuñu ci benn yoon te buggoon bëggoon nañoo ni ko sëñ bi diglee ñu dalal seen i gan euh, ci biir seen i kër mën leen a berndeel te mënuñu ko am ren dañuy teelu Cheikh sàll ci micro euh, sunu correspondant. avant màggal ba léegi nii kër yi man kenn mënu cee dugg daanaka bagage yi am na yëpp ndax boo gisee kër yi da fess delloo comme ndox. gan ñi kenn kep ko xamni ci da nga nan magal sax ren da nga teggi wo ñew da magal ji fanaan. non lañ ay problème noo ni nii añ sax amuñu fuñ ko tal sonu trop du bëgg ko ñu ci jappal rek. waaw di la euh, ñep rek pour ñu ñew jappal ñu ci ndaxte li ñu gëna a sonal sax moy tëli bi ni mo ñu gëna a sonal. Mm. Ah, waa Touba ci kanam ñoo fi def def nañ fii yëpp ay bassin fi fii ñu fi bassin ndox mi war na jall dara mënta jall te ñoom ñi ngi tok jakarlo ak ñun ñi ngi ni ci arabiy jigéenu lool. gis suñ kër yi ni mel ko ndox te guddeeg bëccëg dañ ni romb te defuñu ci benn nemmeeku te def nañ ci lu nekk ñaan nañ leen suuf sax ngir mën koo jéem a baale ngir nunu ci mën a jàppale ba ndox mi mën fay jógee waaye booba léegi nii xam naa jot moo amut wala moyen amut waaye chaque jour ñu wax leen ko waaye ba tey daal amul guñ ci lenn loo xamante ci nii lu saafara wala waaw def nañ ci ay jéego waaye ñun buñ ci defee jéego tamit daanaka ñoon mun suñu loxo jotul suñu ginaaw ndax ñeen war a waxal nu waxee ñoom tamit duñu dégg ndax ña mën a wax ak ñoom mooy ña nga xamante ci nii ñoonu gën a nekk ci kaw ah, wala ñu ñu gën a am doole gën a nekk ci kaw ñooñu dinañ gën a dégg ci ñun ñi nga xamante ci nii dañoo néew doole taxaw ci ginnaaw waaw moom tam ni nga koy lancé appel rek pour mu ñëw jàppale noonu ndaxte moom tam chaque jour day romb fii fii nii taxaw nii dafiy jaar guddeeg bëccëg mi ngi romb ndax këram mi nii rek du fiy jaar ah dina seetaan te lii tamit xam ne dara ci ñoo xam ne ay njaboot yu seew lañ am amuñu doole juñ ko mën a defaree mais comme ñoom ñoo nekk rek war noo a jàppale nan ñu ñëw jàppale te yàlla tax non du neex ndaxte gone yi mën nañ ci feebar ndax daanaka gone yi duñ jug ci feebar sax ndax gone yi koo ci xoolee daanaka yaram yi yëpp ay góom la ba ñii seen yaram yi dañuy feebar te lépp wal ko waral ndox mi nga xam ne ndox fu na lekk wala ngaa ne di ñëw xoolal ndox mi côté yëpp day ñëw te fu ñu toll ñun tam chaque ni ngi def pour lu mel nun ko defaree waaye xañ na yàlla moo nu may gudd doole di ñaan yàlla rek yàlla may nu doole ba mën ko defar di lancer appel ñëpp nag ku ci mën a jàppale nga jàppale te yàlla tax dañuy wax ci leneen ginnaaw euh, coowal mbënn moomu bi yoon dañuy wax ci dem beeg dikk bi nga xamante ne euh, ci màggal gi euh, day tar lool ginnaaw oto yi nga xam ñoo daw ci tali bi charrette yi ñoom ñooy yóbbu ñi nga xamante ne ñoo ñëw màggal si ci gox yeeg goxaat yi mu mel ni ginnaaw mbënd mi nag paas yi seer na lool ginnaaw bi ñu ko tàmbalee woon ci ñaar fukk dem na ba ñeent fukk am sax ñuy laaj juróom-benn fukk ci yenn accès yi bu nee charrette yi ñoo charretier yi nga xam ne ñooy dawal fas yi ñoom dañu jàpp ni lu lu euh, yenn maanaa la ndaxte fas yi dañuy euh, dugg ci biir ndox mi di euh, jànkonteeg ay tawat ñi nga xam ne ñooy clients yi nag ñoom dañ jàpp ni njëg yi seer na lool te war nañ koo mën a xoolaat bu baax a baax li ñuy def mbokkee xarit yi mooy dem déglu ji ki nga xamante ne mooy Ndiéne Sarr jugee ca gin gi neew ñëw ngir daan si doonam ci période màggal gi ñu teewlu ko te ñëw. maa ngi daw Mbusoobe gaara ancien garage Mbusoobe maa ngi daw ancien garage Sexew gi waaw daw. maa ngi ñëw alxames ay midi yooyu ma ñëwee alxames ay midi yooyu ma noppalu ajuma ba set alxames ma kuma ak si